asalaamaaleykum mbokki réew mi asalaamaaleykum mbokki Sénégal dama bëgg rek indi tuuti leeral yu gàtt ci single bu bees bi nga xam ne Sidi Diop da ko génnee léegi léegi ñu bind ci coow li def épisode Omaro mu mel ni Omaro comédien la wala Omaro day cinéma wala Omaro day wër di duul ak di fen ak dajale ak di buzz buzzuma cinéma fenuma barke Cheikh Saliou Mbacke mi ma yaakaar ak sama bakkanu doom lépp lu ma wax ci entretien bi wax ko ci Sidi Diop dëgg la dama ne lépp lu ma wax ci entretien bi wax ko ci Sidi Diop dëgg la suba teel nag balaa meew ma leen merew ma leen ku ne ngi may woo suba teel dañ la saraxe suba teel dañ la sacrifier suba teel li suba teel laa mais merew ma maa suba teel parce que sur le plan technique professionnellement dañu am ay contrat yoo xam ni bi ñu koy lekk ñoom waa suba teel ci turu Sidi di engagé avance bi boobu coow li amagul kon bu coow li amee it faw ñu naxante ak Sidi ba contrat yooyu jeex ñu doog a xool ñoom fañ jëm ak moom loolu nag am nañ droit ut seen stratégie bu ñu ko gérer mais. asalaamaaleykum mbokki réew mi asalaamaaleykum mbokki Sénégal dama bëgg rek indi tuuti leeral yu gàtt ci single bu bees bi nga xam ne Sidi Diop da ko génnee léegi léegi ñu bind ci coow li def épisode Omaro mu mel ni Omaro comédien la wala Omaro day cinéma wala Omaro day wër di duul ak di fen dajale ak di buzz buzzuma. cinéma wu ma fenu ma barke Cheikh Saliou Mbacké mi ma yaakaar ak sama bakkanu doom lépp lu ma wax ci entretien bi wax ko ci Sidi Diop dëgg la dama lépp lu ma wax ci entretien bi wax ko ci Sidi Diop dëgg la suba teel nag balaa mew ma leen merew ma leen ku ne ngi may woo suba teel dañ la saraxe suba teel dañ la sacrifier suba teel lii suba teel laa mais merew ma maa suba teel parce que sur le plan technique professionnellement dañu am ay contrat yoo xam ne bi ñu koy lekk ñoom waa suba teel ci turu Siri di engagé avance bi boobu coow lii amagul kon bu coow li amee it faw ñu naxante ak Sidi ba contrat yooyu jeex ñu doog a xool ñoom fañ jëm ak moom loolu nag am nañ droit ut seen stratégie bu ñu ko gérer mais man. loolu nag am nañ droit ut seen stratégie bu ñu ko gérer mais nag man du ma nangu doon nagu sarax bi kenn du ma sacrifier Sidi ëpp ma barke bàyyi gënuma liggéeyu ndey ba tey man may nekk ci naaj bi Sidi nekk ci kër gi non. du ma ko nangu mukk ci àddina ma bëgg nag sénégalais yépp xam ne way wii ñu génnee man Omaro bokk naa ci ñu conseiller Sidi mu way ko maa ko ne Sidi mu ne ma naam ma ne ko Seynatu démb il faut ngi defal leen morceau spécial maag Makhtar Diop Subatel ñoo ko conseillé keroog ba ñuy way way wi way wi ëpp na un an studio ci projet album bi Sidi war a génnee ci la bokk keroog bañ koy way studio Matar man la woo na ma dama bëgg Sidi way Baye Zall ma ne ko je suis à cent pour kon tey way wii ñu way Omaro way ci Baye Zale te fitna am ak coow jafe-jafe Omar wax ci Baye Zale wax ji way way ëpp na un an bu ñu ko génnee nag pour fay coow li ça veut dire man lañ bëgg sacrifier man nag du ma noppi damay wax ba sénégalais yépp xam ne lii du dëgg c'est faux histoire am na coow am na Sidi trahir na suba Soubatel trahir na Matar Diop Soubatel trahir na Omaro na leer na ko sénégalais yi xam